bu dee man la jël. est bu jëlee keneen ñu toog man moom kooku ñu wax ba kooku convaincre ma wala moom mu convaincre ma ëllëg ñu ànd gouverner parce que duñ nekk ci ginnaawam nekk ab yambaram ki bi tànn yaa yaa ngi vanté tout à l'heure euh, euh, sa sa ay mérite ci wàllum euh, li nga xam ne moo di li nga doon avocat yi nga jote a plaider ci ay dossier mu nekk fii mu nekk bitim réew est-ce que yaakaar nga ni tey bi ci gën a récent en tout cas gën ci siiw mu di le dossier Sonko Adji Sarr nekk na loo xam ni sénégalais dinañ ci sukkandiku pour mën la euh, daal di soutenir ci sa candidature. ah du wax affaire euh, justice mais am na benn femme bu wax keroog sama conférence de presse boo ko suivre muy Adja Ourey Fall nee na nañu ràññee ñaari El Hadji ki nga xam ni avocat la day xeex di dóor di matt di mbëkk. loolu mooy liggéeyam waaye xam ne ne El Hadj Moustapha Diouf à l'état civil di nit ku baax ku sedd ku am yërmande ku bëgg réew koo xam ne du ñëw fi pour xeex rek ma yokk ci ni ko sedd naa sama kër ak sama njaboot duma ma dóor du ma xaste du ma toroxal jàmm la sama kër boobu ñëwee day man maa fa gën a nooy sama jabar yi ñoo gën a tàng sama doom yi sax man lañu gën a jege gën a bëgg def dañuy seen yaay dañoo soxor soxoruñ ne mais dañoo am rigueur man dama bëgg doom bëgg njaboot du ma leen wax dara lu leen neex rek ci laa nekk alors léegi mu ne leen yàlla ju baax lool dana maye bon lu ma am joxe loolu moom yàlla ko def du ma denc dara yàlla ko def lu am joxe ko partagé ko mais boo joxee benn yàlla jox la noonu lay dundee dégg nga astu mais dama ne la à l'état civil El Hadj Moustapha Diouf kenn gënu koo baax kenn gënu koo sedd kon électeurs yi. buñ topp xeexkat bi dóorkat bi ma yokk ci de boo gisee ma gën a laaj réew mi mooy man maay l'homme de la situation ndax fi ñu toll ci senegal yàqkat yi taalkat yi saagakat yi maa leen mën a faj gisuma ci leader yi ku am fulla ji ma am ak fayda ji ma am kattan bi ma am fit yu ma am pour faj ñiy saaga jëpp lay tëj ñiy taal ñëpp laay taal. ah ñiy yàq ñëpp laay yàq. cest à toog fii. mais ce discours bi c'est pas. may ma ma ñëw c'est violent ah. violent wul mais violence. la violence répond à la violence. mais est-ce que dooni dinaa ñëw installé fi benn climat boo xam ne tey ay toj ak taal sax duñ ko fi gis plutôt que de dire. non dama ne ce genre de damay avertir damay avertir un homme averti en dama ni bu ma ñëwee au pouvoir taalkat yëpp di leen ranger seen seen i jaas yi seeni yet ak seeni fetal. waaw boo ñu woon loolu. te fu ñu ko naa leen taal ñoom ñëpp non non je suis très clair hein. l'heure grave notre pays est menacé de toutes parts ñëpp a tiit ñëpp a jaaxle dañuy romb taal ay oto Alaaji Coulibaly ay oto Matar Ba kër Me El Hadji Diouf romb di taal mais loolu ay magasin jàmbur. yu amul dara li ñu am cuisine ñu jënd ay portable di ko jaay. des sièges de parti aussi des sièges de parti yëpp ñuy taal. d' opposition. non ma nekk pour di faral kenn dama ne rek. pour taal ñu taal man damay leeral wane rek man ne aw ma penchant ci yooyu man je suis un rassembleur Sénégal benn la opposition comme pouvoir ñëpp lay protéger ëllëg. est-ce que pare nga pour dialoguer opposition bi nga xam ne souvent da nga koy ŋàññi ni dafa radical bu ci mel ni Pastef gis nañ ni seen relation dafa mel ni demeewul noonu est-ce que tey di nga leen tendre la main une fois élu man maay koo xam ne avocat la de formation ce qui fekkee que man dama allergique ci bandi ak voyou képp ko xam ne da ngay taal voyou nga ba tax ba ma déggee ñu naan nañ génne les détenus politiques man ne ban détenu politique ñiy toj Auchan ñiy euh, taal yi ñiy toj euh, station essence yi ñiy taal euh, ay oto Kër Matar Ba ñooñu ñu tëj leen ay cent personnes ay voyous ñu naan nañ dialogué du ma dialogué bandi duma ma dialogué voyou du ma dialogué kuy taal nee naa la ngi ñi doon taal université bu doon maay chef de l'état damay wax armée ñu ñu hélicoptère yi décollé bombardé ñiy taal yëpp ñëpp ñu ma massacré leen ndax université ku ko taal muy bëggoo Sénégal. et puis les les terroristes. Euh, terroristes yaa ngi tenir non non maître. ci xam-xam nekk parce que day foog rek. vous êtes candidat vous êtes candidat déclaré. asu ma tuuti dëkk bi nga bëgg a jiite ci université. non je veux dire mais ci université c'est important université. il ma sonal ci monde bi c'est extrêmement grave mais xam nañ. mais nañ tëjee enquête maître. xam nañ par expérience. que tous les terroristes li ñu njëkk a def mooy fii xam-xam di am. comme ay état islamique dañ koy taal. est-ce que cela sous xam nga di ko taal pour que xale yi duñ xam dara nekk ay voyous ñu ñu naan seen xel yi ñu topp benn nit comme koo xam ne bëggul Sénégal bu leen taal leen ñu taal dem leen déloger président ñu def di ko jéem a déloger mel ni ay xar mel ni ay dof parce que xam-xam bi soxlawuñ ko ba tax le temple du savoir bu ñu ko agressé c'est une déclaration de guerre j'aurais envoyé les hélicoptères mooy on a envoyé hélicoptères yi armée ñu bombardé ña fa di taal université. man man dama bëgg un président bu am fulla c'est grave c'est extrêmement important dama dul mayete kenn muy jéem a taal dara Sénégal Sénégal réew jàmm la jàmm la ak bëggal donc à quoi nous sert notre justice finalement pour jàmm am il faut préparer la guerre gis nga boo bëggee boo aussi samay question je pose des questions mais dama bëgg foofu leer d'abord affaire université bi mais su may poser question da ngay répondre samay question mais nag répondre ko bëggee donc euh, téléspectateur ak téléspectateur yi. waaw boo posé question bi ci paree gu ba réponse bi di leeral. non vous ne répondez même pas à mes pour discuter ak ay parti yoo xam ne dañoo bëri histoire seen gars yi ñu ngi prison presque mu dina def pare gu ba pour discuter ñooñu. d'accord pare nag pour discuter ku bëgg Sénégal ku bëgg réew mi ku bëgg Sénégal jëm kanam ku dul taal BR BRT bi ku lu yàq terre bi ku dul dem di jéem ay réseau euh, courant yi ak ndox yi nga bëgg ko dagg ah ku banque yi. attaqué société yi taal station essence yi dugg ci Auchan yi. daal bés boo fi toogee dangay ngay restaurer peine de mort. je suis le candidat de la sécurité et du progrès loolu mooy sama slogan de campagne sécurité et progrès. et qui fait des aussi. ah oui ma ne. li ngay wax c'est très grave préparer des omelettes il faut casser des œufs. Hmm. dama ni ku bëgg nen di nga toj boo bëggee omelette di nga toj na bu fekkee da ngaa bëgg jàmm am sa biir réew ay bandi. ay voyous yoo xam tax nañ Sénégal yëpp jaaxle tiit kuy nalaw yaa ngi xalaat ñu taal sa oto taal sa kër. pourtant maître li ngay wax ni. ñooñu ah. euh, la bàyyi ñu continuer jàmm dama la li ngay wax ni la ñenn ñi di jàppee ay mbirum euh, crime contre l'humanité ba yóbbu état bu Sénégal CPI on a vu euh, l'avocat Juan Branco daal di yóbbu dossier boo xam ne jàpp na ni état bu Sénégal moom moo doon à travers en tout cas ses agents. di woon xokkatal doomu aadama yi ñenn ñi ñu leen di rey ci anam yoo xam ne dara leeru si est-ce que tey yow li ngay wax nii du gën a encourager aujourd'hui euh, ce dossier là peut-être ñu mën ko appuyer euh, foofu lee ci CPI. du ma wax ci loolu parce que loolu ku jàng du ko wax ku jàng xam ne CPI du loolu lañ fa yóbbu woon état. tax ñu yóbbu kuy def sa publicité ak ak ña nga fa war a yóbbu nga def le contraire ña ootee mortal combat reyante leen gatsa gatsa dinaa rey président ba la mu rey ma. j'ai besoin de deux cent mille ñun déloger président ñëw leen dee ku dee sa yaa juraat ñooñu la ñu war a yóbbu CPI waaye état lu mu def état lu mu def. nervi de ñoo état lu mu def. état la ñuy jiiñ nervi yi. man nekk ba ci loolu jiiñ état état défendre na boppam. à travers. ah oui son ministre de l'intérieur. Antoine a parlé. que des paroles. de que des paroles boo ko gëmee gëm ko boo gëmul sa affaire la.